fan yii ñi faatu yàlla jële leen fi te jaarale ko ci ay loxo ay yoxo nee na gañ yàlla na yàlla yërëm ñépp ñi nga xam ne it ñoo leen gën a jege ci bokk ndax saa bu nit faatoo rek mbokkum ñépp faatu ndax nit ñépp ay bokk lañ waaye ñi nga xam ne ñoo gën a jege ña faatu xamoon leen ñu xam leen noo ngi leen di masaw di leen jaale ci turu jullit yépp yàlla yàlla mooy xolu muñ te yërëm ñooña yóbbu leen aljanna ñekk di ay jullit kon yàlla na yàlla defal dégg ak topp te musaluñ seytaane nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin